góor ak jigéen mag ak ndaw yéen ñi fi yàlla dogal ngeen teew ngeen xam ne yéen ahlu sunna wal jamaa góor ak jigéen mag ak ndaw da ngeen a yor mission bu jóge ci sunu borom tabaraka wa wootekati yiw ngeen wootekati leer ngeen ay médecin yu am yërmande moom ngeen war a doon ci xeet wi rawatina xeet woo xam ne ay doomam dañuy jànkoonteeg ay feebar yu doy ci pas-pas ci jikko ci jaamu yàlla foofa dem fu nekk fekk feebar bari fa lool loolu lépp sababam nag mooy réere leer gi nga xam ne moom la yàlla wàcce ci alquran al karim sayduna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko kon maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala ak jaamu sunu borom ci def ndigal yi bàyyi tere yi te bari lu ñuy tuub di dellu ci sunu borom tabaraka wa taala ndax doomi aadama dafa bari njuumte gannaaw loolu ngeen xam ne yoru leen risaala maanaam mission boo xam ne day woote ci violence yoru leen mission boo xam ne dafa ñëw di saaga wala muy xaste kuréer réer wala mu sànku bay tànn njiiti lislaam yu mag yu tedd yi di leen xas di leen saaga te fekk ñoo ñu jàpp ci alxuraan ak sunna loolu bu mu leen yóbbi mukk ngeen di jël leneenul njiit di ko saaga ndax njiit loolee kat moom defu leen dara kii ci seen kanam di saaga kooko moo def dara waaye njiitam walla kilifaam kooko deful kenn dara تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لولي موتخ ما يفرد لكسين لك سين كنم ننون دي ساقا ون گرم لو ون يت ساقا ولا خسته وخمالنك نك ديكو ديگلي